yow noo tudd. man Malick Ndiaye. yaa ngi école. man fii Cheikh Moustapha Fall. tu fais la classe. CM1 euh, léegi beneen CM2 laa jëm. Hmm. sa recherche foo koy defee. recherche yi koy defe si livre tout l'univers. Hmm. foofu laa commencé 17. 17 hmm. am nga rek ay wàllum astronomie rek dafa intéressé. dafa intéressé waaw dama ko bëgg trop. di observer étoiles yeeg système solaire bi fi mu ne nii am te yeneen verre gën a rëy rek. ba mhm. defar beneen télescope bu gën a puissant. bu bi d'accord. verre bi. Mhm. bi naan plan concave. Mhm. day retra day soril image bi. dafay éloigner image bi. bii nag l'anticonvergence bi nekk fii. ñu naan ko convexe. bii nag dafay jegeel image bi. yaakaar naa. léegi nag bii moom su ko bëggee mun ngeen am si mio bi lay nekk. léegi nag li mooy zoom bi boo bëggee xëcc mhm. léegi da ngay wa boo bëggee nii ñun teel léegi booy soq zoom bi mhm. da ngay xëcc mhm. nii loo ko defaree noonu kanet waaw ah, kanet laa ko defaree pour que température extérieure bi dañu influencer température intérieure bi mooy fixation bi mooy boo bëggee observer dara. tey nga fixé ko. Mhm. bu ko defee bu ñëwee rek xool photo ko. Mhm. fii nag laser mooy for fii mooy li ñu naan infrarouge bu diggantaan bi. Mhm. day tax nga mën a xool objet bi yëpp da koy nag mooy baar bi koy manuel bi quoi. moo koy manœuvrer. mooy tànk yi. trépied bi moo nekk nii. dama kaa euh, décorer tuuti wala soit ñaawal rek. ñu ngi léegi yow instant bi ku la bëgg a dimbale lan lan genre lan la indi comme matériaux. man mhm. ah mun nga ma andil verre rek. Mhm. mun nga ma andil si lentille convergence yi. Mhm. ak divergence yi rek. type bu nekk rek si ñoom. après yow nga nga toog nga expérimenté ah, defar quoi daal koy defar. Euh, ñaata âge nga am. man euh, kenn mësu la kenn mësu la appuyé. Hmm. Ah, du seen waa école du dans le quartier kenn mës la appuyer. ah mës nañ nañ maa encouragé kay mën nañ dañ continuer rek bonne continuation. Hmm. après du am suite quoi. Hmm. après du am suite. boo sañoon boo sañoon da ngay gën a dépassé fii quoi. waaw su ma amoon ñi verre bees. da ngay dépassé beneen.